dégg jël bu paasee mbooloo dégg jël moo ñu wan ginnaaw moo ñu wan kanam daal di ngemu ngemu lu am bële lii ñu tolloo si cib combat de la soirée ñaari mbër ngay lewtoo ñaari mbër ngay lewtoo déggal ko ci Sadio Séeréer. Babou Ngom waaye déggal ma doomu Babou Ngom bi waaye déggal doomu Gandiaye bi kii nu pë eh mun ata numéro 2 jël nañ ko te jël mun ata numéro 2 moo ko jël moo di ata numéro jël na jël moo di ata na ngeem si loxo droite bi waaye Tic Tic jëlagule déggal ma loolu ñaari bëri jege saako yi de kon ànd lu naa def lu nekkul baaxul toog bi ñarawul déedéet mënul nekk foofu du yoon bi nee naa la foofu du yoon bi teg jël wala boon ànd numéro 2 Modou Anta foofu plaqué mënu fa am foofu plaqué mënu fa am del duloo xa may Modou Anta botti ko mbaa daw bat def trois appui noomu deg jël yéen si oh, ko siège daan ko Modou Anta daan na deg jël dafa ëpp doole lan nee na lan la Anta daan ko dafa ëpp doole xoolal ma lii Anta Modou Anta numéro 1 moo ngi ñëw Modou Anta numéro Modou Anta numéro 1 moom nga ñëw si wetam Modou Anta reporter bi <laughs> Modou Anta reporter Modou Anta mbër de terre ak Modou Anta Mbeur maa lay delloo ziar gi la jox sa wàcci waay gisan sama ñaari waajur gisan sama waa koñ gisan waa géej waay su ma jógee ñëpp ay jóg combat bi seen combat ñoom ñëpp laa ko may maa ngi sant ñëpp képp ku jàpp si combat rek maa lay sant. yaa ngi sa la wutal adversaire bu yomb loo siy wax. non non nekkul bu yomb li nga bokk suñu rek moom daanaan la su doon champion ku tax nga la. maa waajee combat bi. Ah, waajee rek liggéey ak suñuy course ah ñëw yàlla may ñu ndam. li gis combat bi nga yokku lan la. non sa combat rek ak lu ñuy indi suñuy course la ñuy déglu lu mu lu mu laaj rek la ñuy def. nan nga teq foo jëm. Euh, parcelle laa jëm. nee na jot na pour nga jël sa ay morom parcelle laa jëm man ñu ma bëri yëpp sama morom lañ. kan koo fay fekk. kii nii Bécaye laa bëgg. ak Kéléman Sow ay Kéléman Sow. Bécaye ak Kéléman Sow. waaw du la digal loolu. waaw Bécaye ak mandat bi la digal loolu. dafa la dafa sori dafa ma jàpp. li mu waroon gi la digal loolu. dama xam du la digal loolu rek Bécaye. du la digal loolu. saf na de. waaye lu saf saabu la